naafila 18 guddi fukkeel gi ak juróom-ñett ci weeru koor sopp nañ ko ci julli fukki rakan bu ci nekk mu jàng faatixa benn yoon jàng sabbihisma rabbikal a'la benn yoon jàng xul yaa ayyuhal benn yoon jàng xul huwallaahu ahad benn yoon mel ni ku moom àdduna bi yépp ak li ci biiram mu dundale ko ci yoonu yàlla te xarafu ci nekk des na ko ci tabaxal dëkk bu rëy ci àjjana te mel na nit ku jaamu yàlla juróom-ñaar fukki at yoo xam ne da koo yëndoo wóor fanaane koo julli te mel na ni ku jàng alxuraan téeméeri yoon xaj téeméeri yoon umra téeméeri yoon te des na ko ci bindal tuyaaba joo xam ne borom bi subhaanahu wa moom rek moo xam fayam xarit yi ku ci bëgg yeneen ni leeral nga dellu ci xuraatu ayni bu Serigne Souhaïbou bu Mbàkke page 147 wi